gis ngeen ko noonu sànq Ama Baldé ñëwoon ci kaw terrasse bi ndeysaan Ama Ama Baldé ngi génnaat Ama Baldé ngi génnaat Ama yaram bi tàng na ndeysaan sële bu ndaw baa ngi génn Ama ba ngay jubile Ama ngay jubile ndeysaan laa ilaaha illallah oh Ama ngay làmb Ama ngay làmb Ama Baldé ngay làmb ndeysaan yaram bi tàng na ndeysaan saraxe na diwtiir xale bu jigéen la ko sarax laa ilaha laa ilaha illallah caatu fallaay bi yaram bi tàng na caatu fallaay bi yaram bi tàng na ama ki rasul ses fans ama ki rasul ses supporter dugal na si kër ga laa ilaha ma ngay njuk ma ngay njuk oh il est phénoménal ndeysaan Guinée bu Ama yaram ba tàng na ndeysaan déggal ma supporters yi Ama yaa yëngal Pikine ndeysaan Ama moo yëngal Pikine ci raison Laye Ama yéeli supporters yi génn ndeysaan xoolal ma Alaaji Mbay xoolal ma Alaaji Mbay ndeysaan ci làmb làmb doy war wala mo laaj mbay li muy def yor nañ popeline bu bula ñeenti nit gaat koy téye mu am ay almet yu bari ñuy kos di ci sànni tey làmb làmb doy war làmb lépp tegtal la làmb lépp tegtal la ndeysaan làmb lépp tegtal la làmb lépp tegtal la ndeysaan kono moo alaaji mbay alaaji mbay ngay kos ndeysaan alaaji mbay ngay kos almet di ko taal laay lay lan lii land nii ndeysaan xoolal Kumba Balde yaay Pokola ngi noonu cee làmb tout Pikine est derrière tout Pikine est derrière leur lutteur Ama Balde Thiatou Falaye l'enfant chéri de Pikine xale bi nga xamante ni bu jugee Pikine yëpp jug xale bu nga xamante kooku mooy Ama Baldé oh xoolal ma ñi nga xamante ni ñoo taxaw fii di xaar ki nga xamante ni mooy Ama génn ci Ama Baldé waa Pikine dañuy làmb Ama day làmb ndeysaan Pokola Pokola ba léegi noonu ndeysaan def ay tig digam las armao Pokola Pokola Pokola ba léegi noonu Pokola ba léegi noonu ndeysaan Pokola ba léegi noonu ndeysaan Pokola gi noonu moo ngay defal supporters yi cey Pokola moo bëri arñu de cey Pokola moo bëri arñi pingar ah ndeysaan pare na Alaaji Mbay pare na jël na popeline ba jël na ba mu ngi koy takk sa baat ba mu ngi koy takk sa baat ba ndeysaan Kumba Baldé ngi noonu Kumba Baldé ngi ma ngay dox dem ca supporter ya ndax day génne sarax am na oto buy ñëw am na ñëw kan mooy dugg ci ten mooy dugg ci noonu ndeysaan kan mooy dugg ci noonu ndeysaan kon dugg ci noonu ndeysaan kan mooy dugg ci noonu ndeysaan kan mooy ci noonu ndeysaan kii kan la ni kii kan la nii Beacon la nii mburu jéey baa ngi noonu aada Pikine ngi noonu ndeysaan borom defet yi Ada Mbeur a ngi noonu Ada Mbeur l'enfant chéri de Pikine eh Adama mel na kii kan la noonu kii kan la nii daa mel ni ci maara la bokk